mani mama mi kam nam do naaji politique be dama dama ko dama ka de wore wacca wallahi kune topp nañu fi ay faada jaay topp nañu fi ay seena lu fune yóbbu na loolu waaye dara loolu di bind ay kay rek di yóbbu tënkal naa la fii bu ma demee jox président waaye dara dara burki dem nag bu ngeen ñëwee bi ma mama waaye ma wax ni ma ne ah maa ne budul woon yàlla si jëm ma man kam damay noppal ku ñëw sama kër bu ñu waxtaanee bu ñu juboo ñu man a def bu ñu waxtaanul man ak samay waa kër ñu mën a juboo ñu dem nekk toppaj rek nekk lu dara nga waxta sa liggéey yaa nekk maamum jëm nekk lu la dara tey li nu wóor tey Sénégal suñu kër gi rek suñu kër yi rek nga gisee kuy takk sare di sama sare tangi ak sama bari kuura amu fi mbiru fajukaay amu fi dara nekkul léegi ñu fi jaar ci ay président yi te ci ci ci ci ci lépp dañ ca toppal doo ba taxaw ma tey bur gi dem bi nga ñëwee ma ne la budul woon maama mi nga àndal di demal wax bu seen message la man politique ma demal parce que xam naa ne maama mi xam naa suma politique fii songa dara du fi xam naa lu ci bëri du wala wala am na ku nekk dangay dawal sa bopp danga topp sa bopp bopp waaleykum salaam a toppa sa ku toppa sa bokk bokk nag kenn mënu ci daal mhm. waaw waaye am na ci ñoo xam ne moom ngay foofu waaw waaleykum salaam mooy Jalle Adama. sant yàlla baax waaye Kalla. ana waa kër gi. ñu ngi fi kay. waaye yéen a ngi si jàmm. alhamdulilah. man ni maam mi kam nam. Mhm. doon naa ci politique be bu dama dama ko dama ka di war a wàcc. dëgg la wallaahi. dëgg la ku ne topp nañu fi ay Fada Ndiaye topp.